abtaani ñaareel bi aljamaahatu mooy mbooloo wax ya moom mbooloo mi xayru du lu ñu limité maanaam du lu ñu daytal bi xadadin cib lim maxsoosin bari bu ñu ràññeel walakin waaye laa tuji siw du doy min xaa ca mbooloo ma asalaasatu ñett wala arbaxatu jaageenu ñeent wama ak la nga xam ne fii ma ana daalika nekk na ci maxanaam loolu bal li fi nekk laa budda mënta ñàkk ay yakkoonoo ñu nekk xadadan di ab lim te taqarraa ñu dana saxe bihim ci ñoom xariyatun ab dëkk mustaxniina mbir mu ñu way doylu an xayrihim walis ñu du ñoom aaminiina tey way wóolu ci seen bopp waaw nee na bu ñu nee julli jumaa mbooloo mënu caa ñàkk nee na mbooloo ma ñett ak ñeent juróom moom du ci doy te say boo def ko ñaari xaaj dëkk bi bu fekkee taxawalaguñ jumaa te day wax ne ba dañoo sañ a wax jumaa mbooloo ma day bari bari waay boo xam ne doy doy sëkk ci dëkk ba xam ne lu ñu bëgg a defal seen bopp lu ñu bëgg a def mën ko defal seen bopp du aajoo ñu sàkku ji ku leen ci dimbale ca ñu sës ci ñoom te buñ dee tegum nekk xeete yëpp mën ko defal seen bopp na mbooloo mu bare noonu su mbooloo mu xasee bare noonu bañ tabax jumaa ji ba noppi nag ba julli rek des ci moom bu fukk ñaar teewee yu bokk te ilimaan rek mu daal di baax waaw nekki dëkk bi matoon na loolu waaye gannaaw ba ñee dañoo toxatu waa ba ñu fa des léegi bareetuñ waaye mat nañu fukk ñaar yu bokk te ilimaan su boobaa loolu dana doy waaye njëkk ñu tabax jumaa moom nu mbooloo mi bare noonu njëkk moo tax mu ne waxaadal xadadu bi leen lim chartun ab sart la fil ibtidaay ca tàmbali ga maanaam ca sos jumaa ga laa fit dawaa mi waaye du ci ja du ca sax ga du ca sax ga mooy bala ñoo tàmbali daal nu mbooloo mi tol noonu waaye bu mbooloo mi xasee tol noonu ba ñu sos jëmmi jumaa ji moom julli rek des ci moo xam julli bu njëkk gaa moo xam julli ci des la ni ñu ko waxee rek moom lay bëgg a ko ñaar teewee yu bokk te rek mu baax waaye fa inin faddu dem tasaaroo nañu min xalfil imaam yi ci gannaaw ilimaan wa baqiyata des minhum ci ñoom isna xashra fukk ñaar li salaami yi ba ci salmalum ilimaan saxat kon julli ga wér wa manqué na loolu nag ba am na ci ko julleem yàqu laata ilimaan di salmal falaa kon du wér waaw nee mbooloo ma tasaaroo waaye fukk ñaar des na fa yoo xam ne kenn yàqulewu ci julli ba ilimaan salmal ñu salmal noonu moom kon julli ga dana wér waaye nag bu ne fukk ñaar dong bu ci amee kenn ko julleem yàqu laata ilimaan di sëlmal pour ci kenn dëgg yàqulee kon mosul def ñaar moo tax tax mu boole ci kenn ku ci nekk def ci sa julli ba sëlmal ba ilimaan ba ji aljaamihu mooy jumaa fala tasixu du wër fi xëyrihi ci lu jumaa julli jumaa ci jumaa rek lañ koy defee kenn mënu koo tolloole ca fa nga nekk kenn mënu koo ci jumaa ja su koo defee ci jàkk yi koñ ba itam Mhm. jumaa ji nag sartuñu ci mu doon maanaam tabax dëkk bu nekk rek dëkk yi tabax maanaam liggéey ñu baaxoo dëkk rek bu ñu defee lu mel noonu mu baax bu dee ñoo xam ne seen yi seen dëkk ay seng foofu jumaa ji mën naa nekk seng bu dee mag ñëkk ñi nga xam ne booba seng ak tabax amutoon néegu ñax rek la woon ba tey néegu ñax rek lañu def jumaa ji lay lay lay aay daal mooy jumaa ji yées seen néegu dëkkuwaay ko bu dee nga xam ne léegi dëkk bi li fi ëpp ay tabax la bu ñu defoon jumaa ji seng moom du baax bu ko defee néegam ñax itam du baax waaye bu yéesul seen dëkk dëkkuwaay rek moom baax na hmm. ba tey nag doo doo yéegee ci kaw ba ci kaw teraasu jumaa ji nga jullee foofu itam du baax faaw dana ajoo nga jullee ci biir mbaa biir bi xatee nga jullee ci fa sàpp fa ci sàppee ci bitti waaye doo mën a yéeg ci kaw jullee ci kaw wala fii bay ci xanaa diir yi du jaageenu ci néegub ay làmpam nee bañ defee ngir teg ca làmp yeeg yëf yi yu ñu yittewoo ni ki bale eh, yooyu ñu yittewoo ci juma jumaa ji daal loolu la ñu koy def rek ab dencukaay boole nga ci jullikaay bi boo fa jullee rek dont du jumaa ji daa xam tax nga jullee fa du ko tax a baax waxi maanal jaami yi nekk na ci maxnaam jumaa ji fi fi xaqi xëri yi ci àqi kudul imaan rihaabuhu attam ya ba turuxu ak yoon ya al yi aji jokk bi ci ci moom ida tasalat ndem jokkaloon ak sufuufu sàppe ya wa baaxati xat al masjidu jàkka ja ah na bu ñu nee jumaa ji xamal ne kon ëtt ba ca la yoon yi sës ci moom ca la ndegam jëm jumaa ji dafa xat te sàpp yi génn ba ci bitti waaye nag nga génn ci ilimaan ilimaan moom faw rek mu jullee ci biir jumaa ja ilimaan moom bu jullee fu ci biir jumaa ji du baax li tax mu ne fii xàq xëyri yi mooy loolu ku ilimaan moom ilimaan moom lay tax julleem lay tax julleem baax julleem mbooloo baax mooy mu jullee ci biir jumaa ji moom bu jullee woon ci ëtt ba baa yoone ci sës du baax waaye ku bokkut ak moom nag moom bi biir jumaa ji xat rek ba sàpp yi génn ba ci bitti waaw boobaa foo fa yem ci sàpp yi rek mën nga faa julee waaw ni mu ko waxee ci zahir day mel ne day aajoo jumaa ji xat ba noppi itam sàpp yi génn ba ci bitti nga xam ne loolu mooy tax nga sañ jullee ci ëtt bi waaye wax ji gën mooy yooyu yaar lu ci am rek baax na maanaam su biir bi xatee wala sàpp yi génn ba ci bitti rek lu mu ci man doon baax na nga xam doon doonte biir bi xatut waaye sàpp yi génn ba ci bitti it boo jullee ci bitti rek mu baax kon jàppal ne noonu mu ko waxee mel daa sart ne yaar yëpp day boole am ja jumaa ji xat ba noppi sàpp génn ba ci bitti déedéet lu ci am rek baax na bu fekkee ne jumaa ji xatut waaye sàpp yi génn ba ci bitti itam du tee rek ba susalee ci sàpp rek mu daal di baax arraabiu ñeenteel bi alxutbatu mooy xutba xabla salaati ci njëkk julli bokk na ci tax julli jumaa gi baax mooy nañ xutba te xutba bi jiitu julli gi xutba bi mënu cee ñàkk te mooy jiitu julli gi boole ci wala tasihu du wér alxutbat xutba ba illaa bi xudooril jamaahati dara ci teewug mbooloo ma allati ma nga xam ne tan xaqidu dana fasoo bihim ci ñoom aljumaatu jumaa ja nee itam faaw mbooloo mi tax julli jumaa gi baax mooy fukk ñaar yi nga waxoon mënta manqué nañ fekkee xutba bi fekkoon ne ñenn ña fukk ñaar dong lañ te ñenn ña fekkewuñ xutba bi lu ko tax baax aajow ñu tey xutba boole ci wa bu def na sopp al zinatu waaj waajtaay bi ahsani siyaa bi ci gën jaar rafet yére mooy sopp nañ booy dem ci jumaa ji nga sol yére yi gën a rafet yére yi gën rafet nag ci ay ajjuma mooy weex bu gën a weex rek lañ gën a taamu bu dee bisub korite mbaa tabaski moom ñu takku ci gën gee rafet rek moom donte daa ñuul waaye bu dee jumaa moom gën kaa weex rek lañ ciy gën a taam donte daa màggat wa xasu shaari bi ak jemp ay naanu ay mustaasam bu fekkee dafa gudd bopp sopp nañ mu jemp wa wàññi ko waaye dañuy aay nag wat ay mustaas moog sikkim wax ji gën a wóor day araam ngoor leen ba mu set wax ji gën a wóor wa taqlimul azafiri ak ndawi ay weex xanaa sopp nañ nga lewe ko ci bisu ajum boobu bala ngaa dem jumaa ja was siwaa ko ak soccu sopp nañ soccu wa ma sottee bi ak laal gët sopp nañ nga laal xet gu neex wa naxwu dalik ak lu mel ne loole yépp yooyu xeet yooyu nga xam ne xeeti waajtaay la xeet rafet la ni ki wat kawari naq ak xus kawari poqtaan yépp sopp nañ ko dama xamul wax na ca ngaay leem déet ca moom lu ñu taamu lool la ca ngaay leem moom sunna la soo xam ne ñu ko taamu lool waaye nday aajo boo ko defee nga daal dem ci jumaa ja fa saasa bu fekkee ne tam nga ba noppi toggaat lu yàgg di demoo rek waaw bu boobaa da daal ñàkk ca ngaay li xam ne kon boo bëggee amaat sunna si faaw nga sanguwaat waaye yasqutu dana rot fardul jumaati jumaa ja bi maradin ci tawat yata xaddaru joj dana gàntal waxaw ànd ak moom al itiyaanu dikkal jumaa ja waaw nee na saa yoo wéradee wéradi goo xam ne mënu caa mën mën la ànd dem ci jumaa ja rek jumaa ja wàcc na la bu dee gumba goo xam ne sax mënta yóbbu boppam te gisul koo ci yóbbu ba tey kii jumaa ji wàcc na ko aw laa yaqdir wala du ko àttan illaa bi mashaqatin dara ci coono shadidatin bu aji tar bu fekkee mën ngaa dem ci jumaa ji waaye tawat ji tax na boo ci demee da nga sonn lool nga gis koo xam ne day yóor yóor goo xam ne day appaat wala bu doxee tuuti sonn coono boo xam ne dañ ne di far wàcce rek jumaa ji benn yoon ndax mën naa dem waaye bu demee dana sonn lool lool wa bi tamridi xaribin ak ci toppatoo ab jege ñaale ki wax ci wolof ragal ragal ragal jarak na mooy toppatoo jarak nee na boo amee sa mbokk moo xam ne daa wéré di wéré di ku métti ba xar mu toll ci sukuraat te kenn nekk fa ku may yow ah, kon moom nee na ngànt la nga toog fa taxaw ko dañuy mhm. wax loolu sax mooy bu fekkee kooka du sa baay wala sa doom wala sa soxna mbaa sa jëkkër su boobaa moom mm, bu xasee sonn rek waaw donte xam nga ne boo boo boo fi nekkutam kenn dana fi nekk wut la fi du tee mën ngaa toog ndax ndegam noonu la demee ci yow moom waaw du tee mën ngaa toog wa bi xaw fi zalimin ak ci ragal aji tooñ yu uddihi jël dana ko fi maalihi ci alalam aw nafsihi wala bakkanam nee na bu fekkee am na borom doole xam ne daa ñeme yàlla xam ne boo demee julli ji faawut na la nangu sa alal dana jéem a nangu sa alal mbaa mu bëgg laa gaañ ci sa bakkan xanaa ci sa benn mu bëgg laa gaañ ci sa alal mbaa ci sa yaram su boobaa ba tey loolu mën ngaa toog aw xaw fi naarin wala ragal aw safara boo ragalee ne boo jullijee sawara wi dina lakk sa kër mbaa yu demee noonu ba tey mën ngaa toog aw saarix wala aji sàcc maanaam bu fekkee da ngaa ragal ne boo jullijee ñu sàcc sa alal ni ki bu fekkee ne su kër dafa amul kaaraange nga xam ne léegi ragal nga ne boo génnee jullit ji rek ñu wutu la sa gannaaw ak mboolem xeeti sàcc yi ci des rek loo ci ragal rek kon ci yooyu jamono ba tey julli gi dal lay wàcc aw xab si lu ko ramaa yi wala tëjub way fay way fay yi wala wala tëjub way lebal bor yi la xooñeel ko man nga ne aw xab si lu wala tëjub way fayu ya wala aw xabs ko ramaay wala tëju fay fayukati bor ya la fa ko waxuma te fekk na moom moo sirun aj ñàkk la nee bu fekkee da nga amee nit ñi ay bor léegi bu la gisee jumaa ji faaw ñu jàpp lu tëjlu la te sa diggante sa borom xam nga ne yow moom sa fay gi ak tëli dong la waaye bu mënoon a fay fay waaye ku la seen nga dem ak dikk moom day defe ne yow mën ngaa fay dangaa fayul rek te la li yoon wax ci lu mel noonu moom mooy ñu jàpp lu tëj la ba yëg ne sa sa ñàkk fay gi ak tëli la loolu na boo xamee ci sa bopp te defe ne boo julli jiwu rek boo demul jumaa ja mucc ci loolu kon daañu la kon danga mën a toog bañ a dem jumaa ja teewul nag boo demee jàpp lu tëj la itam ñooñu ci yoon lañ ko teg ndegam dañoo gis ne ni ngay dugal ki génn daal mel ne ni mën ngaa way kon yoon moo la tëj lu bu la tëjee aw na aw na ñoom ci yoon ba tey waaye itam nag sañ ngaa bañ a dem ngir loolu ndax xam nga ne ci sa bopp yow da ngaa ñàkk nga bañ a dem nag kon ngir ñu lay tëj wa bil waxaali ak ci ban alkathir bi aji bari bu yoon yi baree ban ba nga xam ne booy dem mu sumb say dàll ba tey loola mën ngaa togg ab mu tekki wal matari akub taw ashadidu bi aji tar bu dee taw taw bu baax boo xam ne boo yeexee daal di tooy boo muruud daal di tooy ba tey kon mën ngaa togg wa ak li toomi ak lekk laaj wal xur yi ak rafle lekk laaj googu nag mook soble yooyu ñooyam ak tux bu fekkee dafa lekk loo xam ne xetam dafa naqari wala mu tux xet gu naqari bu fekkee ne moom moo ko tey ngir bañ a dem jumaa ja dong xam kon du ko tee war a dem jumaa ja nga wax ko demal jumaa ja ba wet ga foo xam ne nga yem nga yem ca mujj ga nga xam ne dooloor kenn xëy na ci xel bi waaye bu fekkee woon nag xëy na daa defoon ne balaa àgg ci waxtu jumaa wa xet ga dañ hmm, te xet ga dañul nag su boobaa ko loolu ngànt la ci bañ a dem jumaa ja kon kon day toog waaye boo fekkee da ko def pexem bañ a dem jumaa ja rek moom dañ koy force ci ne ko faaw na nga dem te boo demee dem ba ci cat la nga toog foofu rafle gi ci la fekkee dafa rafle itam hmm. ba tey kon say boo rek mu toog jullee ci kër gi bañ a dem ci jumaa ja faslu li ab dog la salaatu safari julli tukki sunnatu sunna la maanaam boo dee tukki ngay wàññi julli yi matoon ñeent rakk julli ko ñaar dong loolu sunna la maanaam nga wàññi ko julli ko ñaar moo gën julli ko ñeent matal ko wala xaa na ko nag sababun sabab wa sharaitu ak ay sart wa mahallun ak béréb neen am na lu koy sabab am na sart yu ci aju yoo xam ne moo tax ñu mën a wàññi julli am na itam fuñ koy defee béréb bërëb bi moom mooy rek julli bu mat ñeent rakk rek na ko wax ci kanam lu julli ci béréb bi fa amma sababuha daal sababam fa kullu safarin mooy bépp tukki tawilin buy aji gudd waxoote moom arbaxatu burudin mooy ñeenti barit wal bariidu benn bariid arbaxatu faraasixa mooy ñeenti farsax wal farsaxu benn farsax talaasatu amyaalin mooy ñetti miil wal miilu benn miil alfa diraahin mooy ñaari junni xasab fa hiya kon ñoom sitat xasara fukk lañu juróom benn farsaxan ci farsax ba tey fa hiya kon ñoom tamaan yet juróom ñett lañ wa arbaxoona ñeent fukk miil lañ ci miil añeen li tax li sabab nga mën a wàññi julli mooy sa tukki bi doon tukki bu gudd tukki bu gudd nag mooy na ñeenti bariit bërit benn bërit bu ne ñeenti farsax la benn farsax bu ne ñetti mil la mil nag kon dana ajoo nga xam ko mil nag nee na ñaari junni xasab la ci bañ xamagul mètre gannaaw bi ñu xamee meetar waxan nañ ko léegi ci biñ tolloo ci jullit jumaa ga wute ba ci nekkoon kon ba tey boo seetloo ndoxum wàññi ci ni ko ñenn ñi tolloole day xaw a toll ci soixante-douze waaye am na ñu koy tolloole bu ñëw ci quatre wala quatre-vingt-deux ba ci sax am na ñu koy wax waaye daa mel ni daal li tàmbalee soixante-douze ba ci quatre rek jëm quatre rek moom doy na ci doxu wàññi benn tollu bu njëkk bi sax 72 rek dañ koy wax nun sax moo gën a bari ci nu wax ko ci bànd yi kon su fekkee sëb tukki sore na noonu te sart yi ñu lay bëgg wax daje ci kon sunna la julli gu matoon ñeenti rakk gu ne boo ko dee julli nga julli ko rekk ñaar te bañ koo julli ñeent loo sawar sawar na nga julli ko ñaar wàññi ko mooy sunna duñ taamu nga di ko matal def ko ñeent lee mu ci teg nag daa wax ni boo seetloo kon nangami far sax yi nga xam ne moo nekk ci taxu wàññi boo ko doon seet kon dana war a mat fukk ak juróom benn ci far sax boo doon seet nangami mille moo ci nekk kon dana war a mat quarante-huit muy ñeent fukk juróom ñett ci ay mille hmm, su ko defee nag mu door jàll ci sart yi nag wa ama charaituha daal ay sartam fa arbaatun ñeent la al awalu bu njëkk bi añ yekkoon mooy bu nekkee ak safaru tukki ba wacc xan dig anam waaxidan guddi genn maanaam bokk na ci sart yi tax nga wàññi fi nga jëm nga di ko dox benn yoon buñ ne benn yoon nag jubluwu ci doo taxaw fenn mbaa doo noppul fenn waaye daal dañoo bëgg wax ne sa digganteeg fa nga xam ne moo mat doxu wàññi bu fekkee diggante bi nar nga fee sax ci ab béréb ñeenti fan te fi nga jóge ak foofa nga nar sax ñeenti fan moom matul doxu wàññi waaw su boobaa kon doo wàññi mel ne bu fekkee dangaa jóge fii jëm Thiès mbaa nga jëm Dakar mooy nga bàyyi ko Daaru Muxti gii nuy jànge xam nga kon Thiès gi nga jëm mbaa dakaar gi nga jëm moom mat na doxu wàññi waaye bu fekkee da ngaa nar a jaar fii ci daaru mën naan rek nga xam ne gis nga ne moom soriwut am fa ñeenti fan nag léegi door a jàll Thiès mbaa Dakar kon sa digganteeg daaru mën naan ak diir bi ngay nekk daaru mën naan di fa am ñeenti fan moom doo wàññi léegi nag boo bàyyi ko waatee daaru mën naan nar jaaraat cilmaxa wala pekkees hmm, fas fa yéenee saxaat ñeenti fan door a jàll it ba tey noonu ba tey doo wàññi ndax yooyu yëpp diggante bi matul dox wàññi te nar nga fee sax ñeenti fan mhm. bu fekkoon nag moom naroo fee sax ñeenti fan da nga fa am benn fan wala ñaar rek wala da fa jaar rek noppalu waaye daal du mat ñeenti fan moom kon da nga wàññi léegi nag boo jógewaatee fi ma mujj wax mel ne pekkees wala ba ci ngaay sax boo jógaatee sa jug bu yees gannaaw bi nga saxee ñeenti fan ba noppi door a jug bu ko jàll Cees baa Ndakaaru nag dañuy seet fi nga mujj jóge ak fi nga jëm ba xam mat na doxu wàññeem déet mel ne li nga weesu moom bokkatul ci tukki bi ndax sax nga doon sax ñeenti fan daggoon na wàññi bi léegi kon fi nga jëm la ñuy seet ba xam sa digganteeg moom mat na doxu wàññeem déet su ko matee ngay wàññi ba ngay àgg su fekkee matu ko doo sañ a wàññi lim ci teg ne dahaban cig dem fàq dong it da cee jublu ne dem bi rek la seet ba xam mat na doxub wàññeem déet duñ ci boole dellu si bi ndax xam nga tey fu mel ne Mbàkke Bawol rek boo ko doon seet digganteem ak Daaru Muxti dem bi moom daal ngay xam ne matul doxu wàññi waaye boo doon seet dem bi dellu si bi daanaka mu daal di bëgg mat doxu wàññi kon nag jàppal ne dem bi dong la ñuy seet kon lii mu la waxagun ñaari sarta ngi ci benn sart bu njëkk bi mooy tukki bi na doon benn dem rek leeral naa lim jublu ci dem benn yoon dong leera naa lim ci jublu bu fekkee naroo fee sax ñeenti fan maanaam bu fekkee naroo fee sax fenn ñeenti fan rek mu daal di baax donte nar ngaa sax fenn ñaari fan mbaa ñett itam di ci wàññi dara moom loolu ak demuk benn yoon la waaw ñaareel bi nag mooy nga seet dem bi kese mu mat doxu wàññi te bañ cee calculaale dellu si bi doo boole yaar yëpp dem bi rek ngay seet ba mat doxu wàññi moo tax sax mu teg ci ne fala yuxsabu deful limaale maxa dalika ànd ak loolee arrujooxu dellu si ba bal li fi nekk yoon tabaru def na xalam arrujooxu dellu si ba wax daxoo moom rek waaw loolu moo tax mu ne deesu ci seetaale sa wàññiku waaw boo demee bay wàññiku dañuy seet ba xam foofee ngay wàññikoo ak fi ngay ñibbi si ba xam nu mu demee su ca sarti wàññi dajee nga wàññi bu fekkee dajewu ca door sañ a wàññi attaani ñaareel bi alxasmu mooy dogu xalaa fa masaafati ci dog diir ba almutaqaddimati bi aji jiitu min awalihi tàmbali ci njëlbeenam min xëyri taraddudi ci lu déng-déng daf xatan ci jiñ waaxidat nguri genn ñaareel mooy nga dogu ci diggante boobu da nga dem ba àgg fa waaw ah, fa nga xam ne fa la ñuy wàññee da nga dem ba àgg fa waaw waaye bu fekkee dogu woo ci niki yow fës nga yéene jóge fii dem ba Thiès wala ba Ndakaaru waaye sa baay doom nga seeti te boo ko fekkoon daar mu naan bàccul max sax doo jàll loolu moom doguwoo ci yow kon yow loolu doguwoo ci dem ba Thiès doguwoo dem ba Ndakaaru kooku doo mën a wàññi ba tey su fekkoon dañoo sàcc yëfam mu di ko wër rek wala bokk moom daal fu mu sàmmee ak juróom moo ko jaaxal muy wër ba xam dana gis fu naatam niir rek nga xam ne moom li muy wër fu mu feeñe rek mu daal di wàññi ko wala bokk fi muy seete béréb bu naat bu mën a sàmmee juróom bu ko amee daal fay toog waaw te te wóoru ko ba xam dana ko gaaw a gis wala déet waaw ku mel ne kooku ba tey du wàññi ndax ak doxam ak àggam ci fañ war a wàññee wóorul ba xam dana ci àggam déet léem wax nag daf xatan ci jiñ waaxidatan daa xaw a niroon teeg marratan waaxidatan te max naa moom leeraloon nan ko léegi ca ba ñuy wax wàcc xan waaxidan maanaam sorewut mooy day wax ne rek fi nga xam ne fi ngay bàyyikoo ak fa nga jëm su matee doxu waañ itam dañuy sart nga bañ fee am diggante boo nar a toog lu mat ñeenti fan door a jàll te boo dee seet fii ngay bàyyi ko ak foofu ya nga nar a am ñeenti fan moom matul doxu wàññi te moom misaale woon ko ku bàyyi bàyyikoo daarul mooti jëm Thiès wala dakaar waaye daarul manaan gi dong nga xam ne 16 kilomètres yooyu lañ koy tolloole wala cilmaxa gi nga xam ne gën ngaa bari xëy na du weesu cinquante ah, du weesu yooyu hmm, fu mel ne foofu doo fi wàññi kon diggante bii nga bàyyi fii jëm foofu moom doo wàññi boo àggee foofu it ñeenti fan nga fay am doo wàññi. ko waxee woon nag boo bàyyi foofu jëm fa nga jëm nag muy Dakar ci misaal su boobaa ñu seet na fi ngay bàyyi ak Dakar ga nga jëm wala feneen fa nga jëm ba xam mat na doxu wàññi am déet ak sart yi dajana ci am déet. su boobaa su ci sart yi dajee nga wàññi bu ci sart yi dajewut doo mën a wàññi ak su ñetteel bi ak ashurux mooy tàmbali fii ca tukki ba lu tax nga mën a wàññi mooy nga tàmbali tukki waaye fi ngay waaji ci fi ngay ci sa kër rek julli jot du tax nga daal di mën a wàññi boo jógee dem ba gaaraas tam du tax julli jot fa nga nga mën a wàññi dana ajowoo bu dee dëkk bu mag ni mu ko bëgg a waxee léegi nga dem ba weesu dëkk bi mooy fal xadar yi ku dëkkee dëkkub taax yaqsuru dana sa dana sañ a wàññi isaa xaddaa ndéem jéggi na albasaati na tool ya almansoobata ya duñ askan ilaa tilkal bare bi jëm ci boobee dëkk almamoorata ya duñ dundal bi ximaaratihaa ci dundum dëkk ba nee na boo dëkkee dëkkub taax day aajoo nga weesu luy dëkk bi bu dëkk ji sës yu ndaw sax yoo xam ne ay tool rek la yoo xam ne ci dëkk mag bi lañ aju si ci la ñu ci la ñu duggee marché ci la ñuy defe dañ koy far boole ci dëkk bi ngay dem ba weesu dëkk yooyu door tàmbali wàññi ñu ne bu dee daal Muxti gi am dëkk bu ñuy wax Daaru Sàll sorowul fi dara boo jëmee Touba ci wet googu sooy ba boole ci dëkk bi daanaka ndax fi la ñuy wàlloo si fi la ñuy si marché ñuy defee yooyu dañ koy fara boole ci dëkk bi nga dem ba weesu ko a tàmbalee wàññi ba awee yoonu ci li ma am na dëkk pël boo xam ne yàgg na foofu lool sorowut ak fi àllarba ji nekk ñu bari xam nañ ko sooy boo jàppale ci dëkk bi la bokk wala ngaa wàññi weesu ko dañuy jàpp ne yaa ngi ci dëkk bi la yaa ngi toll foofu rek yaa ngi ci dëkk bi wal xam di ku dëkkee àll nag waxu te moom saakinul baadiyati mooy aji dëkki àll yàq suru dina wàññi itaa jaawa sa ndéem jéggi na xëy na taxoo gàddam wax yow moom gàdd ga nag albuyootu mooy néeg ya allati ya nga xam ne yan sibuhaa dana leen samp li aw yee ngir mu tàpp ilayha jëm ci ñoom nee na bu dee ku dëkki àll boo xam ne ñoo def lu mel ne pël yi def ay witnde wala naar yi def ay gàdd wala kokki kokkiwaan kokki kokkiwaan yu ndaw yu nuñ mel jegee da ngay dem ba weesu bu dee witnde yi da ngay dem ba weesu witnde yooyu nga xam ñoo jegee bu dee naar yi nga weesu gàdd yooyu xam ne ay kër këraan rek la bu dee kook yi nga dem ba weesu kook kook kañ la yooyu le dara tàmbalee wàññi wasaakinul jabali aji dëkki aw doj aw xariyat wala ab dëkk laa binaa boobu di tabax fiihaa muy nekk ca moom wala basaatina du caag yoonu ay tool yàq suru na wàññi isan fasala dem facc na mooy ndeem bàyyikoona xan man siri yi waris këram nee na boo dëkkee ci aw doj rek di xunti xuntim doj wala yow sa dëkk dong moo ne cundum ca foofa amul dëkk amul kër yu sus ci yow amul ay ay tool yoo xam ne ci yow lañ aju si di fa wut si dara mbaa dara ah kon nee na yow boo génn rek daal tàmbale wàññi boo génn rek wala julli jot rek nga daal tàmbale wàññi wa muntaxal xasri yemukaayu wàññi ga fil duxooli ca dugg ga xoo moom mabdaul xasri mooy tàmbalikaayu wàññi ga fil duxoo fil xuruji ci génn ga mabdaul xasri mooy tàmbalikaayu wàññi ga fil xuruji ci génn ga waaw nee na fu ñu la wax ne la boo fa tolloo fa ngay tàmbalee wàññi boo ñibbi si ba tollu foofu rek tàmbalee matal jikki bi la nee boo doon génn fii aw yoonu Touba da ngay dem ba weesu Darou Sall door a tàmbalee wàññi kon xamal ne boo ñibbisi waat ba tollu foofu tàmbalee matal julli bi la nee boo awee yoonu ci wax da dem ba weesu pël googu door a tàmbalee kon boo ñibbisi ba tollu pël gi rek dal tàmbalee woon matal kon fa nga tàmbalee woon wàññi nga rek boo ñibbisi ba war foofu tàmbalee matalati arraabi bu ñeenteelu ibaaxatu safari mooy daganal tukki ba maanaam tukki bi ngay tukki bu mu nekk tukki bu aay fal musaafiru aji tukki lillahi ngir po ka saydi ni ki rabbu min xëyri xaajat ci lu dul aajo wal xaas yi ak aji mayu bi safari yi ci tukkeem ba kat aajo xi ni ki jaam bu daw jaam bu daw sangam wal xaaqi ak aji dogu bokk ñooñu laa yàq suroona duñu wàññi waaye nee na bu fekkee tukki bi dafa aay ni ki koo xam ne day wëreelu di rëbb ji nii ci àll bi rek waaye rëbb mi ñuru ko day lu ko neex nii rek mu koy foyee ni ki bisu gaaw la wala diwéer lëg yóor rek mu ne naa dem wëreelu ci àll bi rëbb waaye moom du ndawal moo ko jafe mbaa dara du ndawal lu rëbb du ëpp buntu bi tam mën naa am leneen waaye da koo neex rek mu bëgg a fo ci àll bi rek kooku neen du wàññi ba tey koo xam ne tukki ba tukki mooy yàlla la ni bu dee ab jaam ci yooyu jamono muy daw sangam wala bu dee ku def ay waajuram ku mën di doon kooku ba tey nee nañ du wàññi xam mhm. amaa maxalluhu daal bérébam nag waaw béréb bu wàññi ga nag fa kullu salaat mooy gépp julli rek rubaa yéeti ngi ko ñeenti rakka adraka gu ko jot na waxtaa waxtoom fi safari ci tukki ba waaw nee na wàññi gi fa nga koy defee mooy gépp julli goo xam ne rek mat na ñeenti rakka te loolu mooy tisbaar takkusaan gee suba ñaar la kenn ko wàññi timis ñett la kenn du ko wàññi moo tax mu ne sax falaa yaqsuru du wàññi asubha suba wala almaxriba du caageenu timis wa yaqsuru dana wàññi faa itata safari aji rawee ci tukki soo am wa yemoo la xadaaxa moo xam faye na ko fi safari ci tukki aw fil xadari wala ci teew nee na nag julli gu ne a la rawoon rek nga koy faye fekkee ci tukki boobu nga daa wàññi daa am julli ci rawoon boo koy faye danga koy wàññi ba ñibbi si woon sax ba ci dëkk bi di ko fay du tee rek nga wàññi ko ndegam ci tukki bi la rawe woon ba tey nag kamaa wittim mu nekk mi matale alxadariyata julli gu teew ga allati ka nga xam ne tarat tabat toftaloona fii dimmatihi ci baatam fil xadari ci teew moom it wa safa ak tukki nee na julli goo xam ne ba mu lay raw booba tukki woo defoo dara nga xam na ko daa matal boo koy fay da koy matal donte bi nga koy fay boobu yaa ngi ci tukki di wàññi it waaye moom yaa ngi ko woon ca matal ga maanaam booba tukki woo defoo dara ba tey da koy matal rek moom wa yaqtahu dana dog alxasra wàññi ga niyatu iqaamati arbaxati ayaamin yéenee sax ñeenti fan sihaahin yu di wér bi mawdihin ci ab béréb waaw nee na bu fekkee ne fas nga yéenee sax ci béréb ñeenti fan yu mat maanaam daal jërë boobu xam ne ba julli ñi ñaar fukki julli dañuy jàppee bis bu ne ak bëccëgum juróom julli moo ci dëkk kon kon nooy am ci béréb yu toll noonu day war ngay matal ba ba nga fay bàyyi koo boo fa bàyyi koo nag di seet fa nga jëm ba xam boo waree wàññi wàññi boo warta wàññi doo wàññi bu fekkee yéen woo ko faa sax waaye la nga fay toppatoo ku mësaa ñëw di ko fa toppatoo faaw nga am fa ñeenti fan ñi moom mënta ñàkk mbaam ëpp ko ba tey kon dañuy jàpp ne kon moo nga yéene ko ñooy amoo ngay daal di matal rek ba tey bu fekkee nag ah, aadoo wuñ ko faa am te yow itam yéen woo ko fa da nga am loo toppatoo rek bu sottee nga daal dem kon mu ngay wàññi rek donte am nga fa loo bu ñeenti fantam waaye amoo amoo yéene ca sax ga li nga toppatoo xamoo kan lay sotti te bu sottee nga daal dem rek ah, kon da ngay wàññi rek boobu nga fa jógee. waaw ba tey nag nga seetlu ne bu fekkee la ngay am foofa dana mat ñeenti fan ci boo ko dee natt ci heure waaye lu tax nag ñaar fukki julli fekk la fa ci na nga fa nara bàyyi ko ci coobare yàlla su boobaa kon ba tey loola du la yàqal sag wàññi moom la saraa bi wax naa faman daxala qabla fajri yawmi sabti wa nawaa an yuqiima ila xurubi shamsi min yawmi tulaata wa yaxruja qabla adaanil hishaa falaa yanqatixu xukmu safarihi falaa yanqatixu xukmu safarihi li annahu lam yajib alayhi fi hadihi l muddati hichrona salaatan nee bu fekkee danga ñëw ci dëkk bi mel ne njëkk fajarub gaaw laat fajar di fenk ci gaaw bi daal moom nga dugg ci dëkk bi nar nga fay nekk nag gaaw dibéer altine talaata waaye talaata jooju nag nga xam ne mooy ñeenteelu fan yi hmm, bëgg nga gannaaw bu jant ba soxee bala ñoo noot gee rek nga daal di ko fay bàyyi ko waaye mhm. yéene sax fa ba jant bi so ci talaata mhm. waaye nag bala ñu nodd gee rek nga génn loolu boo ko dee seet kon day mel ne ñeenti fan yi moom mat na ci boo ko dee natt ci ay waxtu waaye nag boo dee wàññi julli yi moom ci nga fay am ci diir boobu du mat ñaar fukki julli mu ne kon diir boobu nga fi nekk ah nga daa wàññi rek ba moom ngay wàññee wala mhm. nga seetluwaat li ko ci njariñ la iqtidaaul musaafiri royuk aji tukki ja bil muqiimi ci aj sax wa bil xaksi ak ci safaan ba saxiixun aji wér la lakinnahu waaye moom yukrahu def na ko sib nee na ngay tukki ba noppi di wàññi dem fekk koo xam tukki